mbokk internet Leewtoo TV ginaa ba ma leen nuyoo yéen ñi safoo taamu seen émission bi nga xam te ne mooy Leewtoo ak tey nag ñu ngi fii Kër Massar fekk fi beneen champion nar a ñëw nag waxtaan ak moom ànd ak moom ci nga xam te ne mooy lewto ak fii nga ñu ngi fii nag ci salle de musculation les jumeaux kon sama gaay nañ ma topp rek ñu dem seeti champion bi kan la Leewtoo ak lañ wax kon sama gaay yi dañuy daal di dugg rek xool champion bi ñu dalal beneen jeune la nekk ci làmb ji champion avec corona dañuy nuyu noonu noonu. waaw nuyu naa la. maa lay fay maa lay fay. waaw maa lay gën a kontaan parce fi ngeen ma fekk nii sama size la xam nga bi laay entraîné les imons di nuyu sama gaa yëpp ñoom Big Mama ñoom Ibu xam di kontaan si yéen daal yéen waa équipe bi Leewtoo TV yëpp. waaw amul benn problème merci beaucoup ah. jaajëf.

sant bu baax na koy tey delloo ziar gu wér a wér. Eh, boo ñu mënoon wax ci nga xam ne mooy Kalmandou lan nga ñuy wax ci moom. ci Mbagnick am ne lu ma xam ci moom de wax dëgg yàlla champion la waaw parce que moom combat bi am yëpp dañ ciy taxaw wax dëgg yàlla te dañ ko ñaanal dañ ko ñaanal yàlla mu doon champion ëllëg incha allahu rabi loolu la xam naa ko ci moom loolu laa xam ci moom wax dëgg yàlla te ci ku baax la loolu laa. ci li nga mën a téeméer ban jikko moo la gën a ci jikko Grand Mbagnick ban jikko a moom. ma gën a neex ci moom lenn la mënul romb te te gaarewul fii nii ñëw béggee ñu su wàccee day ñëw rek béggee ñu ñëpp dama naan moom nit ku oyof la wax dëgg yàlla loolu moom loolu moo gën a neex ci moom la ku oyof la loolu moom mu ngi ci moom wax dëgg yàlla. en tant que jeune lan nga koy conseiller. lu ma koy conseiller mooy na gëm boppam gën a respecté entraînement yi loolu rek laa koy conseiller. gëm boppam gën a respecté entraînement yi. gëm na lu muy def moom te bëgg na ko looloo ma gën a si moom gëm na ko te bëgg na ko. Grand mañ ah Grand Mbagnick moom li ma la mën a wax si moom moom bëri na xam presque xaaj bi yëpp ñu ñoo ko defandoo sama grand frère la mais boo xoolee sax defuma ko grand frère quoi comme ñoo jujdandoo laa ko def waaw lu ne la ñuy partagé lu ne nag lu ne dund nañ lu bëree bari daal waaw mu nekk nit koo xam ne daal nit koo xam ne ni xam nga. oyof na yërëm na jaam ñi tamit xam nga te loolu moo gën a am solo quoi. Ah, salaamaaleykum soxna si nuyu nañ la. waaw ñi ngi lay fay soxna si ñu ngi lay fay di la sant di la nuyu bu baax a baax. ñu fekk la fii sa place ngay jaay suñu bëggoon xam nga wax ñu tuuti rek ci Kalmandour. Ah, Kalmandour dafa nekk ku baax dëkk fii ci koñ bi buy am ak ñëpp mu même bu dul bëre bi sax su la rombee day kaf ak yow reetaan ak yow muy man am na sama beneen xarit bu fi nekkoon. dafa sëy ñun ñëpp jàmm la sekkoon ak ñun di kaf ak ñun daal nekk nit bu baax mhm, yaatu torop mu nekk mbër ban conseil nga koy jox ah mu gën a góorgóorlu mu gën a góorgóorlu rek te xam ne fu mu teg tànkam bu ko teggiwul dina dem ba am lu bari bari daal mhm. nee ngeen minente ngeen moom ban defoo ban defoo nga gis ci moom ah man de xawma ci moom benn defoo ndax foo ko seen ay bëñam ngay njëkk seen bu ñëwee fii ami tooñanteeg man kaf ak man reetaanam bu amee bëre ñoo fi ne ma am loolu daal laa sekk ak moom fu ma romb nuyu ma même man sax bu ma ko gisul sax moom dina ma jéem a gis ba ne ma ami ça yaa ngi ci jàmm moom moom ku baax la moom amul benn problème waaw ok merci ñoo la gën a kontaan waaw. salaamaaleykum nuyu naa waa boor bi ak waa boor bee Leewtoo ak lañu waxaa fépp la ñuy dugg salaamaaleykum bi nuyu la. ça maa ngi lay fay bu baax. ñu bëggoon xam ci nga xam te ne mooy Calme Ndour li nga wax ñu ci moom lu ndaw rek. ok Kalmandour Grand Mbagnick lañ ko xamee ñun. kon Grand Mbagnick. waaw <laughs> Grand Mbagnick lañ xam ci moom wax dëgg yàlla baax na yaru na laabir na bëgg na waa koñ bi lépp lu mu am ci koñ bi la koy indi mais temps yi moom dañoo raar nu mu fa demee noonu nag moom. dinañ raar waaw gisatuñ ko fenn. daay yëg du yëg boppam sax mais xam na entraînement yi la topp rek ba gisatuñ ko fenn ñu bëgg mu del ci koñ bi ndax koñ bi ñoo ko moom. boo ko doon jox conseil ban conseil nga koy jox. mu gën a vigilant rek gën a gëm boppam xam ne làmb ji moom mun na ko teg si loxoom ndax am na capacité bi doole dooleem wane na ko te gëm-gëmam wane na ko bu ci toppee rek incha allah dina am dara. mu am combat ki nga xam ne mooy Eumeu Sène junior xale bu dangereux amul benn pression ci yéen. non non amul pression moom moom musul am combat mu parce que moom moo ñu koy wan moo ñuy wan ne li may dem nii du dara damay dem daan ñëw te noonu la koy defee lépp lu mu ñu wax noonu la koy defee na bëree xarañ na mais. suñu mbër moom wóolu nañ ko bu baax te incha allah ni mu doon demee rek lay demee. ok merci. jaajëfal naa ko ne wax gis ngeen fépp laay dugg ah maa ngi ci sax ci biir téere Leewtoo ak lañu wax comme sama gars yi nañ ko topp rek dem xooli mbañik mbokk internet Leewtoo TV ah bi ma ginnaaw ba ma leen jaajëfalee comme ni ñu ko waxee Leewtoo ak la ñu wax grand Magic la ñuy dalaloon wala Calme Ndour xam naa suñuy gënee xuus ci waxtaan bi dañ ci xam dara euh, Calme nuyu nañ la. maa ngi leen di fay waaw kontaan si yéen di si équipe bu Leewtoo TV waaw di nuyu sama xarit yi ma àndal yëpp ñoom Ibrahima ñoom Boucar ah, ñoom Zal ñoom Aso di nuyu sama papa tamit di ko ñaanal weer gudd fan di ñaanal sama yaay yàlla ko yàlla xare ajjana waaw di jaale nag sama waajur bi wàcc bu vendredi passé ay satu coor maa ngi koy jaale waa mar yëpp sama yaay la sama lépp la sama weeruwaay la xam nga mu nekk nit koo xam ne metti na ma trop mais yàlla soxlaa rek yam fay ñàkk ngi koy jaale waa mar ñépp waaw di nuyu nag <clears throat> sama sëriñ Chérif El Wali doomu Cheikh Bounana doomu Cheikh Talibou ya doomu Cheikh na Cheikh Saad bu di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu yëpp di nuyu mbokk xaadir yëpp di nuyu suñu xalif général Cheikh Aya koy ñaanal gudd fan ak wér di nuyu xalif général yu nekk Sénégal yëpp maa lay nuyu bu baax. Mm-hmm. soo ñu mënoon wax Calme Ndour si en quelques mots kan mooy Calme. moom moom xale bu ndaw la waaw judo Ili Saloum yaroo fa màggee fa dëkk bu ñu naan Marfafa ko. Ildu Saalum la nekk Île de Mar xam nga ñetti dëkk yoo xamante ne dañoo déggoo manko muy Mar Lodj Mar Sulu Mar Faafa ko fa laa defee sama lépp xam nekk si région de Fatick nekk koo xamante ne fa laa commencé jàng sama enfance yëpp fa ko defee daal. jàng nga ba fan nga yem. waaw jàng naa ba classe quatrième. Mhm. ma bàyyi waaw. lan bi rek. bëgg làmb moo tax ma bàyyi. ci loolu la ñu ñëw lan moo la dugal ci làmb lan moo tax nga choisir nekk mbër. non làmb moom mosuma mosul nekk sa sama objectif. parce que euh, dama nekkoon mhm. laa doon visé wu parce que dama doon góol. Mhm. góol laa doon def xam nga di fowantu loolu mais xam nga lu nekk sa deret mënoo koo daw. parce que samay nijaay yëpp dañoo jaar si làmb. bu mhm. jur sama sama yaay. samay rakku baal ma yaay. ak samay rakku papa yëpp. dañoo jaar si làmb. kon lu nekk si loolu sama deret la mënuma koo daw kon loolu tax bu mu ñëwee rek dama tegee làmb bi kii football bi fële tegee basket bi fële suivre làmb ji. Mhm. nga ñëw ci làmb tuddee sa bopp Calme Ndour ñu naan Grand Maniack lan mooy différence bi ñaari tur yooyu. non Calme moom mooy coom bu nekkoon palmarin mooy dama koo bëggoon quoi sama mu nekk nit koo xam ne dama koo supporté woon dama nekkoon Ndakaaru. Mhm. ci Yékini xam nga bi ma commencé jóg ci làmb na gars yi ne ma dañoo nuroo affaire di ma mais grand Mbagnick moom sama tur la noonu laa tudd. Mhm. waaw. kon Kalm Kalmu daal mooy tur bi nekk. ci ci yi ñoo xaw a yàq tur bi sax du Kalmu Ndour Kalmu Ndoor la Kalmu Ndoor. Kalmu Ndoor mais xëy na wax ji rek ne Kalmu Ndour. luy rek mooy comme benn dex boo xamante ne benn paa moo fa doon mbaal. Mhm. comme tey moo moom mi di dem si benn dex di fa mbaal di fa mbaal ba gars yëpp ràññee ko foofu. Mhm. ñu tuddee ko dex bi comme dexu moomoo. waaw noonu la quoi. avant ngay ñëw ci làmb lan nga doon def ba métier nga doon suivre. non man avant may kii di fowantu ay sport football basket yooyu. Mhm. waaw kon léegi daal ça veut dire que ci làmb ji nga nga. a kii nag visé wu quoi waaw. Mhm. mën sa palmarès. waaw sama palmarès moom man avant may dugg si làmb kii maa ngi commencé bëri 2013 Mbapat. Mhm. Mbapat si àll bi parce que ñun moom xam ne xëy na lu ñu man a lu ñu soxla ci si làmb sax xëy na. roi des arènes rek la ñu soxla mais façon trophée bu nekk jël nañ ko si làmb mhm. xanaa léegi sax médias yi bëri léegi sax mais am na amoon na ay jamono yoo xamante ne boo boo duggoon si Ili Saloum mboolaay boo waxee ne Grand Mbagnick rek mhm. dañ lañ naan lii ak lii ak lii ak lii mhm. mais moo tax ma woon sa waaye émission bi dama bëggoon ñu defee ko suñu dëkk ngeen door a xam ne man maay kan ak li ma def si làmb mbapat mais xëy na bu ñëw si bëre simple bi kii ba lutte avec frappe bi am naa si huit combats huit kan ak kan nga daan. non ñi ma daan moom mënu leen. ko kan ak la daan. kan man non amaguma defet. amagoo defet non non. Grand Manick amul defet piège laa doon def rek pour xool. Grand Manick nga nekk mbër sa premier combat ndax nga ko dundee. son premier combat maa ngi koy bëree stade du Bargny maak Balla Doole. Balla Doole noo ko dundee premier combat. ñëpp xam nañu pression bi muy am parce que mu nekk combat ne dañ ma koo jox. te xaw ma ki ma war a bëri. Mm-hmm. comprendre ma dem. ñu ñu dem ba si làmb ja parce que defuñu signature parce que bu premier combat yooyu gars yi duñu la wax na kii bu nga day mm-hmm. dajal boobu kàngam kàngam bu Kër Massar moo doon bëre grand combat léegi ñu dem stade gars yi di mbëri di bëre di bëre bëri yëpp di dugg si may laaj sama waa ji ne kañ laa war a bëreel quoi ñu ne ma nga war a bëre dugg si na boobu dugg si na bu yàgg ba toog mu nekk ngan dim koo xamante ne <laughs> léegi ñu ne ma moom nga war a bëre ma ne ko nag maa ko mën mm-hmm. boobu jógagul quoi mu toog may may lagat ko seen côté bi quoi pour mu jóg mais mais waa ji booy bu mu jogee noonu moom loolu leneen la ko sa firnde loolu leneen la waaw mooy cinq <laughs> ma delloo avance bi mais après bu mu dawee. Mhm. bu mu dawee njaab nii rek. Mhm. waaw dama ñëw ba sama coach bi. Mhm. père xës maa ngi koy nuyu bu baax suñu entraîneur bi. ñoom père Dégol maa ngi lay nuyu. ma ne ko non kii kii maa moom combat bi sa du mot sogon. mu ne ma loo wax ni ma ne ko billaay mu ne ma bëñ lii du bëre simple ma ne ko man maa la ko wax. combat bi du mot sax 10 secondes te noonu laa ko defee. arbitre bi day siffler ma dal si comme dóor ko benn droite mu wàcc. waaw ci li la gën a marqué ci arène bi lan moo gën a marqué. non lu ma si gën a marqué moom mooy mm, defetu Yékini defetu Yékini loolu rek moo ma gën a marqué si làmb quoi waaw. doo marqué la nga ne loolu mënul am wala. non man gëmuma sax moom xama man mm, moom moo ma yar laa mën a wax te man lu ma doon gom mu xamul daan ak daan. te man loolu laa ko jàppaloon moo tax combat bi ba léegi nii daf ma def kii quoi. waaw daf ma sokkee quoi ba léegi nii waaw. combat bu su ma la newoon mosuma seetaan toog nii concentré wu si combat mosul am. Mm-hmm. mook Balla gi mosul am. Mm-hmm. waaw kan mu dul a ñëw ci jaar jaar tuuti ku dund jaar jaar la neex loo naqari a neex ci sa jaar jaaru làmb man moom li ma gën a neex sama àdduna mooy keroog bi may dóor a jël sama drapeau premier drapeau. Mm-hmm. waaw loolu moom neex na trop. loolu la gën a neex lan moo la gën a naqari ci làmb lu ma gën a naqari moom mooy keroog bi ma ma jëkkee jël drapeau. ba andi trophée bi gars yëpp ñëw kër ga. ma gëstu gisuma sama yaay. waaw xam na nag metti na nag mais loolu nag bokk na si lu ma gën a metti sama àdduna parce que damay jël samay avance. xam nga tey xaalis bi doo xam noo koy def. Mhm. comprendre te man. moo sañoon tey ma jël sama avance tey bokkoo ak sama yaay. Mm-hmm. xam teral ko yóbbu ko màkka mais yàlla bu soxlaa rek ñun ay jaamu yàlla lañ gëm nañ yàlla. Mm-hmm. xam nga bu soxlaa dañuy ñun ñooy perte quoi moom mooy jël. Mm-hmm. yàlla moo xam ku nekk li gën ci yow di ko ñaanal rek yàlla xaare ak aljana ñu fa fekk. Euh, calme ñu nekk ci li nga xam te ne muy Covid làmb ji demee benn boor la moo sa gis ak actualité làmb bi. waaw Covid bi moom kii na quoi Covid bi. nekk na loo xamante ne lëmbe na du kee ahlu làmb kese la kii sax la lëmbe mm-hmm. mais àdduna bi yëpp waaw ba bitim réew Sénégal yëpp mais nekk na affaire boo xamante ne choqué na ñëpp mm-hmm. waaw bépp liggéey kat boo xamante ne yaa ngi yaa ngi yëngatu rek si business wala ngay lekk yëngatu si loo xamante ne moom ngay tëralee say njaboot rek corona bi daal kor na la quoi. corona bi kor na la mbas bi mbas na mbasaare làmb ji. ak mbër yi fi ñu toll yaa ngi entraîné est waaw man maa ngi entraîné di maintien rek comme kenn xamul kan la mais xam nga dañuy dem di contact di waajal mbapat yi rek xam nga comme mbëri door amagul te lamb yi ñu ngi teg ay côté Gambie ñu ngi si di waacaay di waaj rek pour génn compétir xam nga di entraîné noonu te doo compétir. Mm-hmm. xam nga ciwul quoi waaw balaa caa da ngay découragé mais moo tax. ñu ngi entraîné di waajal mbapat yi rek. Mm-hmm. waa mbap avant ñëw ci mbapat yi sa combat ak nga xam te ni mooy Nguel Dione la moo tax nga refusé ko loolu nga leeral ko askan bi. non combat boobu sax moom eh, boo gisee combat bi nu mu taxawee sax xëy na coow li bëri coow li moo bëri woon sama diggante man ak moom mu nekk loo xamante ne champion la man champion la waaw xëy na rivalité day am si mbapat ak si bëre dóor mais maa moom ay rivalité lañ nekk ci yoo xam ne mhm. amateur yi ñoo ñu bëgg mhm. ba làmb bu ñu mën a dajeel sax coow li day bëri même bu tasewul sax bu ma bëree jiwul sax moom bëree jiwul sax ñu ku nekk wàcc di baaku coow li day bëri. combat bi daal maanaam amateur yi ko bëggoon. waaw amateur yi ñoo ko bëggoon man sa bëggoon naa ko. nga daw kan da ngaa ragal wala sax man bëggoon naa ko que combat bi ko jël. Mhm. comprendre mhm. bëggoon naa combat mais dama xam ne mhm. dem naa ba xam ne man maa juum parce que man ñu yoon te man mm, li ma mën a xasuma ko nag mais li ma def si Borosim Brodeur moom defu ko. dama lay dagg bokkoo leen yoon ça veut dire que yow yaa ko dépassé ay niveau wala nga jàpp ne yaa ko mën wala non si maa ko dépassé si ay niveau mhm. dëgg la nag ñu ngi bëre mbapat di jël ay trophée mais bokkuñu yoon si làmb ji mhm. comprendre loolu tax ma xam ne samay nit wax ma ne ma yow fi nga dugg bokkul surtout ma ma père de Gaulle maa ngi koy remercier bu baax mu nekk pas boo xamante ne ku xam làmb la mhm. comprendre nga nit ki booy dugg rek da ngay wax ak say staff que combat dama ko jëloon si loo xam ne dama meroon parce que loo xam ne coow li day bëri day bëri affaire gars yi topp la nii ak nii gauche droite moo ma dugaloon si loolu. Euh, calme combat bi jàpp nga ne kooku yaa ko da nga woon da nga ko waroon jël jëm jaar ci kawam jàll wala da nga da nga doon bañ jël di risque. boobu mu man chaque da nga doon bañ mu yow mu def la garab gu daanu jàngee ci yow yéeg voilà. su ma ko daanoon. damay gasal sama bopp kàmb rek koo xam ne kenn nangul bëreeg moom. su ma bëreeg moom daan ko yóbbu ma fenn mais seen combat bari a na coow waroon ngeen ko mën a leeral yéen ñaar non waroon nañ ko mën a leeral mais dama xam ne man su ma ko jëlee daan ko mhm. wala su ma ko dee jëlee tamit yóbbu ma fenn buusalu ma mer mhm. wala fi ma nekkoon rek laay nekk parce que tey am na ñoo xamante ne Kër Massar fii ñu ma waxoon ne maag diw ñoo am combat ñu ne ma kooku mooy kan mhm. xam nañ ko si bëre symbole mii rek mais si arène bi kenn xamu ko waaw moo tax mu ne ah, bi mu waxtaanee delloo sama avance man maa ko delloo man loolu moom. yow kay yaa ko delloo moo tax ñu ñu ci ay rek ku ne xam fi nga féete. maa delloo avance bi. Mm, du ragal du dara. non day ñëw ci sa diggante ki nga xam te ne mooy Boy Niang seen diggante boobu c'est quoi la. non moom moom. micro bi waaw moom sama sama seexandoo la. sama seexandoo la sama doom la mu nit nekk nit koo xamante ne nit ku dogu. ku bëgg doomu aadama maax moom dëkk nañ trois ans si benn néeg mm-hmm. man ak moom. ñoo doon fanaan benn lal mu tëdd nii ma tëdd si ginnaawam trois ans boobu bëreeguma arène boobu maa ngi door a ñëw Dakar sama benn mag Maam boobu ñu denk ko Maam Ndour Maam Ndour jëlee ma village boole ma ak moom comprendre nga ma nekk écrim nekk këram ñu lekkandoo di naanandoo di demandoo entraînement ba mooy bëree sama première combat arène deuxième combat si laa door a ñibbi si fii sama kër Kër Massar. mu nekk nit koo xam ne daf ma jëlee considéré comme boppam bu voyagé bay ñëw lu mu jëndal boppam daf may jëndaale. Mm-hmm. am na am na jamono yoo ma ba mu voyagé dem Italie ma dama doon toog di ñëw di jóge fu ne ay Gàmbi. Mm-hmm. di ko sees yi booy ñaanee ko fi dinañ kii kii booy ñaan la gars yi yaakaar man dañ koy nax affaire yooyu. di photo man di yóbbu samay photo. waaw léegi a nduroo nag. kon nga xam ne loolu koo xam ne loolu daf ma jàpp. boobu mel na sax loo xam ne dañoo boog maam ñoo bokk ndey ak baay waaw mu nekk nit koo xam nag ak yaayam mère Anna dañ ma bëgg seen bopp daal famille bi yëpp dañ ma bëgg waaw mu am combat capital digganteem ak euh, Tapha Tine Pape Thialis Faye moo euh, tëgg combat boobu lan nga ci mën a wax. waaw combat yi moom xanaa di remercier Pape Thialis mu nekk jeune boo xamante ne day doxal làmb parce que bu ko neexoon tamit moom nekk kese na yow yoru fi yoru fi xam ne yor nañ fi ay télé yu mag. te defuñu moom lu muy def mais tey bu defee bàyyi lépp parce que lu muy jox Boy Niang ak kii ak tafaatin Tine xëj na feneen xëj na si mbokkam wala xëj na si leneen mhm. bu ko neexoon mu investir la si ay tool si ay leneen mais da koo ñëw pour dundal làmb mhm. kon dañ koy ñaanal xam nga mu am si réussite totale mhm. réussite totale mbër yi nag jàppale ko bëree ko si fair play xam bañ ko yaakaar si dara xam nga mobilisation bi xam mooy loolu ba tey sa relation sa relation ak nga xam ne mooy ordinateur. Mhm. ba ñu gis ko mu intégré Crip booy Niang. Mhm. Mhm. waaw ordi moom kooku moom sama xarit la. parce moom fu fu ma nekk day bugg a nekk moom fu mu nekk dama fay bugg a nekk. moo tax maa moom inséparable lañu. waaw mu nekk koo xamante nag sama waay sama lépp la. papam sama xarit la. parce que bi may dóor dem ñaaxaar boobu xaw ma foofu sax moom moo ma yóbbu foofu. parce que magam. magam bu góor moo doon jàngale suñu dëkk mhm. mais sama papa lañ ko bàyyi la xam nga suñu dëkk boo boo jógee beneen dëkk ñëw foofu di jàngale wala nga def leneen wala nga liggéey si mhm. Mhm. dañ lay jël bàyyil la benn nit wala ñuy jox la kii kii mooy sa yaay si dëkk bi foo jaaxle nga dem foo ba kidoo ngay dem mais magam boobu sama papa lañ ko bàyyaale woon mu nekk loo xam ne dañ koy jàppale dëgg loo xam ne dañ koy dund ku mbokk waaw ñu jàppante nag fa la ñu suñu relation mu yóbbu ma seen rek ma bëree foofu jël fa tournoi sama première dem foofu ma jël fa tournoi. Mhm. papam ne nag nee na maay mbërëm waaw mu nekk loo xam ne dañ koo sàmm. bëggante te ñu tricher quoi. kon daal yaa yaa yaa dugal ordinateur ci équipe ba. boo waaw man ko maa fexe ba mu ñëw foofu mais bëggoon na ko mais man maa ko gën a poussé pour mu ñëw foofu. Mhm. waaw ba léegi relation la wax ba relation nga am ak yeneen mbër yi. non man moom du nature man nii laa mel dama oyof. Mhm. waaw ku ma gis dama koy jël considéré comme sama waaw parce que man li ma xamante ne du ma ko dund lu ñaaw man du ma ko du ma ko du ma ko def si lu ñaaw man du ma considéré yow noonu ngay dundee lu ñaaw damay kon ne man li ma mel ni may dundee lu baax noonu ngay dundee lu lu baax moo tax nit ku ma gis dama koy jël considéré comme sama bopp jàpp ko même bu dee yow sama adversaire nga sax dama lay jël considéré comme comme sama bopp mm-hmm. waaw nga am combat ak ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène junior nan ngay waajalee sa combat boobu waaw ñu ngi koy waaj ak samay mbokk samay staff waaw waa koy waaj bu baax mu ne combat boo xamante nag combat bu ma fonk waaw comme combat yi rek la nag comme combat passé laa ko def mais dafa combat bi daa am fu mu ko teg waaw daa fu mu ko teg waaw ñu bëri nag ñu ngi naan dama xeeb sawaay dama ko mais combat bi dama koo fonk waaw mu ngi naan nag combat moom moo gën a bëgg moom ak gën a kii moo ko jëla boppam mais xëy na lu ko dugal si combat bi sax xamu ko waaw mais bu ko soñoon tey tey tey bu ko soñoon bu yoroon xaalis bu mu delloo avancé koy delloo mm. mais xam na ne man man maa moom du combat. nga am confiance Eumeu Sène junior nekk xale bu bëri caay-caay ñu jàpp ne combat bi sax peut-être mooy nekk sa examen ndax it jàpp nañ ne ñeneen ñu nga doon bëri yëpp ay nooy neex na da nga doon jaar seen kaw jàll ñi jàpp ne combat bi mooy sa examen yow mi calme toi. si lu si si ñu ma xamul si ñu ma xamul. su ñu ma xamul mun nañoo ne combat bi examen la si man mais là je d'accord mm-hmm. parce ñoom xamuñu ma comprendre nit koo xamul mu nga ne combat bi examen la si moom affaire yooyu mais ñu ma xam. xam nañu Eumeu Sène fu mu dugg baaxul. fu mu dugg baaxul waaw. lan ngay wax Eumeu Sène junior. bon mu waaj rek mu waaj rek comme ni mu koy waxee si télé yi si média yi ak réseaux sociaux yi si whatsapp yëpp na ko defee noonu rek jour ba man moom li ma ko wax du mu si delloo ginnaaw prib dip teel a libéré gars yi que man sama waa dëkk fu ñu jógee dafa sori parce que dañuy dugg gaal dañuy yéeg saret ñëw dugg gaal dugg oto loolu ñëw ci làmb ñëw Dakar war a ñibbiwaat te comme talu ma nekk fii di lewetoo jëmale suba talu ma ko ay bëre yu yàgg yooyu mooy de non non man damay ñëw rek prix bi dip rek. loolu confiance la nga yàgg sa bopp ci mystique nga ko teg wala ci gàllankoor. wala ci doole non xamante ne abi day ñu benn adversaire du ñu benn. waaw Eumeu am beneen jeune. waaw moo tax ma ne la moom ñu muy bëree ay ñoom na ma ñoom bursin la doon mujjee bëre mhm. jëmale suba léewatoo léewatoo ba ku nekk bàyyi ñoom ñaar yëpp ba yàlla dogal kii daan foofu foofu mën amu fa dañoo sonn rek man taluma loolu man xale laa am naa doole am naa ginnaaw am naa ay mbokk comprendre nga man at bi day sifflé mën ne ko prib dip gars yi ñibbi kon ci loolu yaa ngi jàng sa adversaire j'espère non man man du ma soxla ma ay jàng man li ma mën man moom laay andi stade mhm. parce que man sama combat bi bi bi mu mujjee bëri maag tafaatin rakku tafaatin bi combat bu amul lu ma si déggul fi nga dugg baaxul lii waroo ko jël kii du sa yoon kii moo la man damay ñëw fat fat libéré gars yi man joobeewu ma noonu man l'essentiel at bi na dindi loxom bi rek moom libéré naa gars bu yàgg. Mhm. waaw làmb fi mu toll nii ñii njuut njaaj naan instant bi ñuy bëri ñuy bëri huis clos est-ce que pare nga pour bëre huis clos. déggoo man muy huis a sawar sax que man dama sonn parce que suñu que gars yi naan. kii moo mën Calme Ndour kii moo mën Calme Ndour kii moo tax ma yaakamte combat bu nekkoon buntu këram wii close gars yi seen kër nekk si kaw étage bi man pare naa pour bu rek moom yàlla xam na loolu beneen phénomène bu am ci làmb ji muy MMA mbër yëpp di boobu dem est-ce que Calme pare na pour dem bëri ji MMA si si maa ngi si maa ngi si di waxtaan samay mbokk ak samay staff ñu ngi si daal ñu ngi si entraîné aussi am naa benn coach boo xam ne ñu ngi ma si entraîné waaw pare naa association bi nga xam te ne nii xaalis bi nga jëm waxoon na taxawaar pour mbër yi boo dem bëri MMA pare nga pour bokk ci. waaw pare naa si pare naa si même bu dul loolu sax bu dul ay association yu sax am na ay samay mag yoo xamante ñu ngi si kaw ñu may lijjante loolu pour ma génn dem defi loolu ko mm-hmm. Calme ñu gis ko mu mise ci lutte simple ñëpp xam ko ci li nga xam ne mooy lutte simple lutte simple ak avec frappe ban moo ci gën a métti. non lutte simple moo gën a métti parce que benn combat rek la. benn combat boo xam ne nga koy waaj ay 3 mois 4 mois mm-hmm. xam nga loolu dafa yomb. Mm-hmm. si benn nit xam turam xam turu yaayam xam turu fépp. ma mm-hmm. loolu dafa yomb mais su dee tey lutte lutte simple tey xamoo ndax Boucar dina ñëw Ibrahima dina ñëw. moo dina ñëw. xam nga yow da ngay dem rek. waaw boo duggee si làmb ji Ibrahima ñëwul keneen mooy ñëw. keneen moom moo ñëwul Ibrahima ñëw. xam nga rek loolu dafa metti quoi. mais nga doon ne da ngay waajal benn mbër. dafa neex. ba léegi lu simple bu amoon da ngay dem bëre ji lu simple. non si si man damay bëre de man man am na suma combat boo xamante ne bu mu desee une semaine dama génn bëre ji dama génn bëre ji bu ko waxee desee une semaine. ma finaalu ñëw continuer bëre sama combat. lamb yi lamb bi du du tuxu fa nga xam ne mooy Gambia people est-ce que pare nga pour dem bëre ji Gambia. non si man maa ngi si moo tax man ma lay naan instant yi ñu ngi si àll bi di contact compétir yokkoon nag ba suñu yaram yi yàqu. Mhm. pour waajal Gàmbi bi rek incha allah. ñu gis ci benn du mën a sax torof torof mais benn inconvénient bu ndaw ñu ne ku bëgg a dem bëri Gàmbi il faut que nga am licence su aussi nga bokk ci écurie Gàmbi est-ce que loolu du nekk benn handicap ci mbër yi. non yi dañuy wax rek parce suñu booy yëpp ñu ngi bëri ji foofu ay lamb yi passé yëpp suñu booy yëpp dem nañu ji foofu. te foofu amul ku fa lu yore licence dañuy bëri ji foofu ñu CNG nekk ñuy defar foofu licence ñooy ñoo koy defar mais Bira Sène bañ ko déggee ci waxam démb dafa ne licence su euh, licence arène nationale Sénégal la yam yeggul Gambie kon moom loolu mënu ci ah, ah, na mhm. na sama booy yoo xam ne bëri ji woon nañ foofu waaw. kon mën nañ xaar Kalmandour ca Gambia. people waaw nañ ma xaar su Gambia waaw loolu kay amul sax. làmb ji am changement CNG bu bees Bira Sène lan nga koy wax lan ban message nga koy lancé. waaw man moom man moom li ma si wax mu genre yooyu moom li ma si wax xanaa di ko ñaanal rek comme li ñu sent si moom mu motali ko xam nga te ñun ñun ñun sénégalais ñu dooleel ko buñ ko seetaan comprendre loo gis rek xam nga njàngat la te benn nit mënul yore réew xam nga dañ koy dooleel féete si ginnaawam xam nga jàppale ko mais bu ñu naan ne moo doon xëccoo moo doon xëccoo ba ñu ko jox nañ ko xaar croiser mes bras non non bu ñu ko doolelee rek moom dina liggéey mais bu ñu defee mais croiser rek moom du xam lu muy liggéey xam nga maa leen nuyu ñoom ñëpp parce que combat bi man ñoom awma seen fay waaw di nuyu nag sama coach koo xam ne su ma amee combat day daggee bii France ñëw Sénégal muy Mitterrand Mendy di nuyu jabaram tamit aana ak euh, sama grand Ousmane xaritu nii la kooku moo tax andi sama relation man a Yékini ba nii ñu toll nii tamit Yékini maa ngi koy nuyu bu baax tamit di ko ñaanal gudd fan ak wér xam lépp lu ma bëgg daal yàlla defal ko ko ndax sama grand bu baax la ma bëgg maman di nuyu suñu waa kër nag ñoom ñooma jabaru papa yi mm-hmm. maa leen nuyu bu baax ñoom ambaat ñoom yandeb maa leen nuyu bu baax amara yàlla ma leen ñaanal daal gudd fan ak ñu dem daal ba ma yóbbulee ñoom ñëpp màkka mm-hmm. waaw lépp lu ma doon rêvé defal sama yaay mm-hmm. defal leen ko ko si barke Cheikh na seex Saad bu waaw di nuyu waa mar ñëpp nag di leen ñaanal lépp lépp daal jàmm am fa dëkk bi feebar bi fi jóge fii daal waaw di la kontaane ñu ngi lay jaajëfal remercier nañ la bu baax a baax a baax jaajëfal naa la équipe Leewtoo TV yëpp ah Mansour ci caméra bi Yacine Fall bégg naa la bu baax a baax sama réalisateur bu mag bi moo maa ne moom lu mu dawlu bëgguma kontaane naa ne kontaanee Kalmu moom mu ñu dalaloon fii ci Kër Massar ñu ngi leen di jaajëfal di leen leen kontaane li moo nekkoon seen émission Leewtoo ak leen jox dig daje ëllëg ak beneen bër incha allah ba léegi ah comme Calme du nee nga jàng ba quatrième ah Calme t'es marié. non pas encore je pense que encore marié waaw. pourquoi. non je suis encore plus jeune jeune je suis très jeune. Calme t'es pas jeune tamit nag. non si si je suis très jeune. oui que mes mes frères et mes grands frères avoir des femmes mais quest que qu'est-ce que tu dis à tes fans. oui je lui dis qu'on prépare le combat je lui dis que moi je suis prêt. oui je suis dans mes entraînements et le reste daal c'est c'est à lui quoi bu préparer et les mobilisations il a fait la combat moi j'ai parti là-bas au le stade et j'ai gagné. Oui. tu es en face de Eumeu Sène Junior dis-lui quelques mots. mais Eumeu Sène Junior ce que je vais dire euh, c'est pas c'est pas trop je lui dis que il veut préparer tout et ici le combat il prépare les entraînements la mystique. la euh, cardio et la mobilisation. Parce que je le suis que certains comment je vais le hmm. je suis plus fort que lui et ce que j'entraîne, lui, il ne le fait pas. Oui. Qu'est-ce que tu de Leewtoo TV? waaw ah, de Leewtoo TV ah, je vous salue vous tous hein et mon ami Moguette je le salue oui je salue Assane de Leewtoo TV et Pape Thialis je vous remercie vous tous et oui euh, Yacine et euh, Mansour et Ndeye waaye ouais, je vous salue vous tous hein, je suis très content parce que bon j'espère c'est moi qui seul lutteur dans le Sénégal mais vous avez déplacé tout et pour laisser tout pour venir pour passer moi la journée et je vous remercie vous tous hein oui. Quelle est la, la date de ton anniversaire? Oui, on fête d'anniversaire, c'était le qui comment dirais-je, le 11 janvier. le le 11 janvier bi. le 11 le 11 le 11. le 11 janvier le 1er janvier. non non le janvier le janvier passé. je l'ai fêté ici hein. oui lors de interview de Boy Niang là-bas. oui à Pikine. c'est deux jours le oui. <laughs>